Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 28 mai 2024 parce tey faut la ñuy des ca qui ginnaaw bi nga xamante ne amaloon nañu fa visite qui nga pas ne mooy Ngagne Demba Touré du directeur du SOMISEN ak n'a nga xamante ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu pétrole énergie ak mine di Biram Souleye Diop bi mu ñëwee foofu am na ay kàddu yu mu yëkkatiwaat ñenn ñi nag tuddee nañ ko ben bourde la def bourde mooy lan en tout cas wax li nga xamante ni nit ñi mënuñu ko comprendre kon nañ déglu ñu Birame Souleye Diop job, si à ceux qui disent qu'il n'y a pas un projet. Mais c'est quoi un projet Une volonté, une ambition, avec des hommes, un agenda, un timeline et des délais. C'est ça un projet. kon yaakaar naa ni Biram Diop yëkkatiwaat na ay kàddu wax ko ci kanamu askan bi yëpp ñu jël ko def ko ci réseaux sociaux yi mu doon benn risée ñenn ñu tuddee ko bourde taxaw amuñu projet nit ñi waxuñu amu projet ñëpp dañuy jappone da ngeen am projet jàpp ni ko projet bobu da ngeen dem ba transformer ko bind ko def ko ci livre muy la solution El malik Ndiaye taxaw na waxo ci plateau 7TV ak Maimouna Ndour fay mom mi di directeur u SOMISEN doon nga taxawaloon di Ngagne Demba Touré taxaw na liste sen projet ba ngeen bind ko ba mu wax 5e point bi manam moy lan kon Birame Souleye job ne ne di wax amuñu projet Birame Souleye job bi ngi laaj sénégalais yi lan mooy projet sénégalais yi ñu ngi koy delloowaat laaj boobu ñu ne ko lan mooy projet ndaxte sénégalais ci yéen la ñu déggee projet kon yéen ñi ñëw indil sénégalais yi projet wax leen projet yéen a war a expliquer sénégalais yi lan mooy projet waaye moom indi na explication nee na projet mooy lan mooy c'est des hommes am détermination am timeline am télé nee na loolu mooy projet kon donc loolu yaakaar naa ne jarul woon bind ci livre kon nag muy burdu boo xamante ni Birame Souleye job def na ko mais ñun nag waxuñu amu leen projet ndaxte ki ne woon am ngeen projet moo ñëw ci communiqué conseil des ministres xamal ni sénégalais yi projet bi amaguñu ko ñu ngi koy bind te projet pour mu pare ba ñu teg ko dafay fekk nga bind ko ñu saytu ko ba expert yëpp xool ko ñu xam ne ne lii see réalisable ñu daal di koy exposer mu doon projet comme tey mën naa ne mariage projet la maintenant un projet de mariage maintenant naa ne le ak deux projet mariage projet mariage boobu maanaam moi lan mooy bëgg naa takk jabar waaye ouais ak takkuma jabar aw ma projet kon jour vous même demee ba jour jabar donc jour vous laay xam réaliser dans sama projet chaque jabar tey mën nga am projet am dom mën nga am sa jabar nga ne ñun kat dañu am projet pour am dom fi ak un an wala deux ans mais sank que amu dom doom réaliser wu len sen projet bobu lolu moy projet waye projet du timeline projet du télé projet du nit projet du nangam sangam projet ay ambition la projet ay euh, objectif la yo xamante dang koy fixer projet la lo xamante dang koy dox ba nga xamante ni da ngay contourner bépp obstacle ba so excès ci li nga bëgg nga xam ne da réaliser nga sa projet kon Birame Souleye Diop yëkkatiwaat tuwana benen budget ñu xamul won ni que am nañu projet kon jappalé ni que Birame Souleye Diop nee na loolu mooy projet am nañu ay nit am nañu timeline am nañu détermination am nañu télé c'est vrai kon yaakaar naa ni leer na ñi doon wax ni que ñi amuñu projet kon Birame Souleye Diop nee na leen am nañu projet Thank you.